Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk rek ci seen euh, invité de la rédaction euh, yaakaar nag yéen dootu leen ko présenté ti ci biir kër gi di 24 actu yi tey nag suñu gan nekk ki nga xam ne moom mooy Khadim silla di responsable politique bu APR nekkee fii ci diwaanu Touba laataa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu bàyyi xaadim mu nuyu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy bàyyi xel ci site bii di 24 actu yi jërëjëf soxna Astou ñu ngi lay nuyu di nuyu say collaborateurs yi nga xam ne ñeneen nekk ci site bii muy 24 mhm, actu di nuyu aussi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers votre site mhm. nekk ci dëkk bi nekk ci réew mi ba ci bitim réew mhm. ndax euh, gis nañ ne site bu am solo la ci paysage médiatique euh, bu Touba d'abord mais aussi ci ci Sénégal kon nag euh, ñu ciy profité rek pour di nuyu di ñaanal aussi di sàkku ñaan ñëpp ñoo xam ne si ñu ngi ñuy déglu di ñaanal xalif général des mourides yàlla yàggal ko yàggal ko fi te eh, li nga xam ne sumb na ko ay naal jëm ci liggéey Serigne Touba bi yàlla may ko ko mu mottali ko jàmm ba sumb yeneen liggéey jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf Khadim ci nuyoo bu am solo boobu euh, yow ko nekk responsable politique bu APR nekkee fii ci diwaanu Touba euh, ñu seetlu na jamono ji seen parti bi am na ay coow rawatina dàqu ki nga xamante ni moom mooy Moustapha si Lo nekk ci biir parti bi ñu bëggoon a xam ndax jàppoon ngeen ne dàq googu moom moo nekk li nga xam ne mooy le meilleure solution. waaw xam nga politique moom. Mhm. ak coow ñoo ànd. Mhm. ndax politique xëccoo la baaxoo. Mhm. dafa am bindkat bu mag bu ñuy wax euh, Patrick Charodo mm-hmm. muy apte ba français la buy gëstu ci wàllu politique mm-hmm. dafay wax ne relation ci politique du relation de concurrence dafa romb foofu relation d'opposition la euh, loolu nag bu ñu ko bëggee expliquer mm-hmm. mooy concurrence da nga yor sa bitig ma yor sama bitig ñu ñaar ñëpp ñu ubbi euh, ngay jaay may jaay politique nag demewut noonu ndax politique en général organisation vertical maanaam dañuy teg ay postes yoo xam ne euh, xëccoo daf koy laaj pour ku man mooy kan mooy toog ci siis ba ñuy fàttaliku euh, sunu maam yi dañ daan wax ne euh, xaw ma siis bi benn la ca Senghor a cay toog ñi naan siis bi benn la te Lamine da cay toog mm-hmm. exactement ndax boo jëlee bara par exemple ci biir parti mm-hmm. da ngay gis ne organisation bi ni ma ko waxee léegi organisation verticale dañ naan secretaire général ne secrétaire administratif poste boobu nag boo ca gis mm-hmm. benn nit dafay toog te pour nga jot ca foog nga xëccoo ko jële ko fa ka fa nekk pour mën faa toog noonu la demee aussi ci rapport entre les partis doo déggoo ñu naan mouvance présidentielle ak opposition opposition ba la mu bëgg mooy siège ba xam ne ñëpp moom la ñu bëgg ndax ku créer parti rek exercer pouvoir moo la yëkkati donc ka ca toog ña nekk ci opposition ba dañuy def tout pour jële ko fa. pour vous dire que du concurrence bu doon concurrence rek ku ne day teg sa parti teg sa programme ku nekk fu la neex far mais déedéet. doguma la nekkul concurrent mais est ce que jàppoon tamit coow loolu lu yàgg ci parti bi la président Macky Sall tamit yàgg koo seetaan. c' normal c' tout à fait normal parce que aussi président Macky Sall daf ñoo jiite waaye aussi moomuñu kenn ku ci nekk euh, te moom démocrate la aussi. loolu moom ñëpp xam nañ ko ci moom. dana bàyyi bàyyi nit ñi ñu compétir euh, ku ci nekk xeex ba nga war a xeex nga def ko. suñu am kenn ku nekk aussi légitime légitimement da nga am say ambition ba ngay dugg politique euh, duggoo ci rek pour ñu lay lim naan kii responsable non non non da nga am ay ambition bëgg a exercer bëgg a occuper yenn place ci parti bi d'abord mais aussi ci état bi mais nag comme ni nga ko waxee euh, il faut que euh, xeex booba ñu def ko une bataille seen une compétition saine ñu mën a bañ a dépasser yenn limites yi te di regretter lool li nga xam ne si aussi am na ndax bu yemoon ci compétition politique rek xëccoo la wax ci ay programme critiquer doxinu parti bi loolu moom kenn mënu koo tere kenn. mais est-ce que nekkul na affaire de seetaan daf cee am ba tax coow li mu àgg mu àgg. waaw mais du du seetaan loolu rek dafay wax ne vitalité démocratique bi nga xam ne parti bi am na ko. ndax démocratie la nekk quand même munoo guillotiner nit ñi tëj seen gémmiñ du duñu wax waaye nag li ma wax rek moo ci nekk. il faut ñu xam limite yi. limite yi mooy bataille d'opinion la wax say idée waaye nag bu demee ba ay wax yoo xam ne tegginu di ko nettali sax di ci génn mm-hmm. loolu moom lu ñëpp di regretté la te nag bul na seetaan ndax bi amee mm-hmm. parti bi sévir na quand même. Mm-hmm. ci conseil de discipline daje nañ. Mm-hmm. Euh, jël si mesure yi nga xam ne si moom la ci war a jël. Mm-hmm. waaye nag euh, ginnaaw euh, ay jàmm. ndax comme ñun mënuñoo tàggoo foog ñu ànd. te nag ki nga xam ne touché na ko responsable politique la bu mag ñun ñu xam ko fii ànd ak moom ci Touba. gis nañ li nga xam ne si liggéey na ko ci parti bi gis nga xam ne liggéey na ko ci réew mi ba ci Afrique aussi. waaye nag aussi président de la République bi nga xam ne moom la àndaloon yaakaar na dollee na ko. engagement bi nga xam ne moom la moom la am ndax bu fekkee jël na ko tabb ko mu doon vice président assemblée nationale mu jël ko fexe xeex ba doon le président de euh, parlement CEDEAO kon yaakaar naa ne aussi delloo na ko njukkal mhm. li ci des nag mooy rek vraiment ñi yi dafee démb mhm. yeneen saa yeeg nañ ci jóg rek dox jàmm mais tamit est que jàppoo ne tamit leader bu mel ni Moustapha Cissé Lo ku ne xam na ne jàmbaar la woon ci parti bi rawatina élection yi euh, ku lu mel ni parti euh, APR nekk au pouvoir perte ko tamit parti moom euh, xam nga politique sax laay wax d'une manière général mm-hmm. addition la baaxoo maanaam dolli ku jog rek génn donte élément la sax bu mel ni man un élément peut-être euh, ni ñuy wax insignifiant entre guillemets euh, comme man mm-hmm. dana am jeexital ci parti bi mm-hmm. donc suñ sañoon nit ñi dañuy dolleeku waaye kenn du dem waaye waaye nag parti aussi il faut mu am discipline loolu tax suñ parti am conseil de discipline mu am ay règles yu tënk ay nit parce que ay nit buñ daje foog mu am ay règles yu leen tànk sinon ku nekk lu la neex ngay def règles yooyu nag moom moo dal ci kaw suñu euh, camarade ancien camarade ndax mën naa ko mën tuddee ndax comme parti bi te ñu lañ ci lañ bokk moo réunir jël décision boobu ñu bokk teen ñooy laxatooy ñooy laxasooy goj waaw léegi nag nañ fexe ba jàmm mu del si parti bi ndax président de la République gis nañ liggéey bu xam ne liggéey bu mu rëy bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci réew mi te soxna toutes les compétences pour mën kan nga jàpp ne jamono ji mën na taxawaay waay place am non xam nga àggaguñ foofu dañoo nekk ci processus Euh, conseil de discipline jël na décision Euh, waaye nag moom peut-être que am na ay moyens. mais jombul nga am yaakaar ci koo xamante ni mi ngi ci parti bi te xam nga ne jàmbaar la te mën na taxawaaye comme ni Moustapha nga ne jàmbaar yi bari na ci. Mhm. te aussi vraiment ñi ngi def liggéey bu am solo kenn ci nekk ci niveau de responsabilité am euh, mënuma nag citer ay personne c'est pas important ça li am importance mooy responsable yëpp joxante joxante loxo xam nañ vision président de la République xam nañ lim bëgg bëgg bëgg-bëgg ñu euh, am ci réew mi ñu fexe koo accompagner ndax boo cité personne rek mhm. lu mel nii mooy am personne n'est indispensable dans le parti mhm. waaw loolu aussi président yàgg na ko wax te réew mi ñoo ko bokk parti bi ñoo ko bokk nañ waxtaan rek trouver solution continuer ànd liggéey euh, mais mel euh, ko waxee woon sànq lu yàgg ci seen parti te gis nañ ne parti bi euh, mel ni ay ngi ci am lu ni tamit Moustapha Cissé Lo nga xam ne mi ngi woon ci parti bi jóge na ci ak ku mel ni Moustapha Diakhaté ndax kàngam yooyu nga xam ne ñi ngay rocceeku pendant que nak ci biir parti au pouvoir nekkul loo xamante ni tamit mën na ko gën a suuxee le parti APR APR. waaw loolu xam nga boobu laa la wax léegi parti politique benn bëggul loolu dama ne politique benn benn mbir la ñaar la opération la nangu. nangu na addition nangu na multiplication waaye nangul soustraction ak division kenn ku génn rek mën na indi jeexital ci parti bi. loolu laa la wax waaye aussi ñi fi nekk ñu xam ne aussi euh, parti dafa am nu muy doxee am ay règles parce que mënoo bokk ci yëf. ba pare génn ca biti di ko critiquer mën na am nag lu la ci naqari su boobaa ngay doon responsable bu mag mën a teew ci instance yu mag yoo xam ne président de la république tey day toog. Mhm. la la ca naqari mën nga koo jooy foofu. mais jeexital yooyu ñu waxoon ci biir est-ce que xam nañ yenn genre jeexital la. non jeexital yi non parti politique parce que bar benn baromètre moo am ci politique mooy popularité. Mhm. ndax euh, gis nga bu ñu demee élection wax ji mën naa bari lool. proposition yi ñu ne ah kii dem moo gën a programme moo gën a neexi proposition moo ci dàq wax mais finalité ba mooy dañuy wàññi xob yi rek ko ëppale yaay gay moo tax ma ne la bu ci kenn génnee rek mën na indi ay jeexital surtout euh, euh, responsable yu am dimension boobu aussi mm-hmm. kenn mënu koo xeeb mm-hmm. moo tax ñu ñaan rek jàmmu dellu si te je crois que euh, solution mën na ci am am na aussi mm-hmm. ay limite ay frontières yoo xam ne kenn waru ko franchir ndax am na loo xam ne attaque personnelle nga koy wax ci nit ki di ci wax ay waajuram loolu kenn mënu ko rafetlu waaye nag au delà de ça war nañu mën a waxtaan sur l' essentiel l' euh, essentiel mooy réew mi l' essentiel euh, mooy bëgg réew mi l' essentiel mooy liggéey mi nga xam ne président de la république moom lay liggéey ci réew mi te bu ñu tegee loolu euh, suñu kanam yaakaar naa solution mën na am ci bépp problème. mu nekk lu am solo Khadim nga nekk responsable APR comme ni ñu ko waxee woon sànq ci parti politique bi euh, Khadim ñu gis ne jamono ji ku la xam ne ne mbas mi di Covid 19 yàgg na lool ci réewum Sénégal te gàllankoor na lu bëree bare bëri ndax mën nañ xam depuis boobu ba léegi yéen taxawaay ngeen ci def ci pour wàllu sensibilisation bi. waa sensibilisation bi eh, yaakaar naa ku ne gis na ko euh, moo tax sax réew mi dafa day waar dafa am ñoo xam ne dañoo jàppee seen bopp ne spécialiste lañ lu jóg te boolewu leen ci rek ñu ut duñ ko xajamalee. ñu mooy ñi nga dégg ñu nekk ñu naan expert communica expert communication spécialiste en tel loolu moo gën a yomb ci réew mi war dañoo xool sax yooyu ban diplôme lañ am euh, euh, am na ñu naan. gouvernement bi dafa lajj ci communication bi communication weesuwul euh, yëgal nit ñi wax ji am jeexital ci ñoom ma lay ñaan nga jël sa micro génn tey ji nga interroger fukki nit mën naa la wax ne juróom-ñeent yi danañ la wax lan mooy coronavirus danañ la wax nu muy manifesté woo danañ la wax danañ la wax lu koy joxe danañ la wax ni muy manifesté woo danañ la wax nan lañ koy éviter mais lan lañ bëgg une maladie mm-hmm. man jàngalekat la mm-hmm. mais boo àggaan ci module yooyu yi jàngale feebar mm-hmm. dañ lay wax exactement ne trois paramètres yooyu lañ ci soxla mooy booy càmbar feebar bi da ngay wax ne attention feebar bi nii lay mandarga yii lay def ci nit ki. mais Xaadim waaw non may may ma àggale rek. boo paree ñu ne la. lii moo koy joxe. ñëpp xam nañ liy joxe feebar bi. troisièmement ñu ne la boo ko bëggee éviter nii ngay def mm-hmm. est-ce que ministère de la santé communication boobu boobu muy def mm-hmm. nit ñi xam nañ trois paramètres yi may wax waaw mm-hmm. ka jàng ak ka jàngut ñépp a ko xam génnal fii léegi xale yi sax dañ koy foyee ci mbedd bi kon nag ñooñu ñuy wax nañ xam ne réew mi ñoo ko bokk te benn mbir la cee am feebare bi biñ koy séen muy ñëw Chine bitim réew muy en Europe Italie France gis nañ dégâts yam fa def ñun ñëpp ñu tiitoon ne bu egsee lii suñ système de santé attanu ko malheureusement je dirais am na résilience boo xam ne am na peut-être que scientifique yi xamul ñu ñu koy expliquer mais daal gis nañ ne nit ñu ñuul ñi wax dëgg yàlla Afrique laay wax sax du ma ne nit ñu ñuul ñi ndax boo demee Amérique noir américain noir américain yi nekk foofa feebar mi ngi leen di bu baax en tout cas af nu Afrique feebar bi ni mu méttee woon Chine méttee ko Europe méttee ko fii mën naa am nag nit ñi loolu lañ gis ba indi ay tayal ci mesures yi ñu leen xam ne moom la wax pour éviter fièvre bi toutefois fois gis nañ ne mi ngi lore ndax presque ñu ngi ci à deux plus de presque deux cent décès te te ñi muy gën a lor mooy mag ñi ak ñi nga xam ne dañoo yor yeneen feebar kon nag ku ci feebarul aussi ku ci euh, nekkul mag ay jeunes ak yooyu nekk ci dëkk bi sa kër ay mag a nga fa say kër sa kër am na ñoo xam ne ña nga yor feebar yoo xam ne xamuñ ko muy ay diabète ki tension wax gis nga ni mu bëree ci réew mi te ñu bëri xamuñ ne ña ngi ko yor xamuñ ko kon nag ñun ñëpp war nañoo ànd xeex xeex bi ndax ba mu amee gouvernement bi jël décision tëj nit ñi confinement de durée même semi confinement am na ñoo xam ne métti woon na lool. trop métti trop ndax. Mhm. Euh, damay dem ba nga wax ne péril économique bi. ak social bi. en même temps côté boobu pour may la nga continuer rek dafa mel ni comme erreur de communication bi côté boobu tamit dafa mel ni ñu bëri dañuy wax ne diggante bi président waxee ne dañuy tëj yoon bi côté euh, état d'urgence bi ak couvre-feu bi loolu dafa nekk espace boo xamante ni dafa xaw gàtt trop pour nit ñi am si ñoo xam ne ñu ngi woon seen beneen réew pour war a dellu seen bërëbu liggéeyukaay diggante bi dafa gàtt ba nga xam ne tànc bëri bëri pour ñu toog duñ mën a bi est-ce que nekkul ne foofu la. loolu ñu koy wax mooy ñi amul responsabilité mm-hmm. ndax ku gis dégâts dama leen mm-hmm. boo séenee ngelaw lu rëy muy ñëw fere nga gis ko muy ñuul di riir di ñëw doo xool ndax sa technicien bi mbala kee ña nga ca biteeg fee da ngay tëjaale sa buntu xaar bu ñëwee fëgg la nga ubbil leen te loolu lañ def ku gis dégâts yi feebar bi def en Chine def ko en Europe en Occident ñëpp tiitoon nañ kenn nag moo amoon responsabilité jël les bonnes décisions comme que bu feebar bi pour que bu fii loolu nga yam am foofu bañ koo am fii kooku kenn la woon muy président de la république su ko defutoon tey jii feebar bi egsi fii def loraange yam def Chine dañ naan moom mooy responsable bi il fallait prendre les mais nag après décision bu amee day évoluer par rapport à la situation ñu xool gis ne ah attention lam indi feede lam loraange yam def feede defu ko fii kon nag nañ assouplir waaye waxuñ nañ lever mhm. dafa am équivoque dañ ne euh, vivre avec le virus man d'accord ma ci loolu man dama bëgg ñuy wax ne vivre en présence du virus mooy virus baa ngi fi waaye nañ dund ak moom xool nuñ koy éviter nuñ koy moytoo ma jël seen benn confrère métaphore bi may defar rek muy euh, El Modou parce que boo génnee ci tali bi fii xam nga ne oto yi ñu ngi dayee waaye nag am na foo xam ne def nañ fa ñu ne la boo bëggee jaar fii nga war a jaar boo bëggee jéggi na nga xool à gauche à droite ba oto ñëw. loolu dafa mel ni dañ koo mujjee est-ce que njëkkee woon ko tamit gënul. waaw non si yàgg nañ di ki wax euh, dafa amoon mesure extrême mooy nañ tëj nit ñi wàññi circulation bi biñ demee ba nga euh, xam ne gis nañ ne affaire yi kanam demeewul noonu dégâts yi ñu ñu ne nañ desserrer un peu léegi nag nit ñi moo mën a accompagner dynamique boobu ndax la ñuy wax yomb na. voté te ku ne xam na ne sénégalais yi Sénégal sénégalais yi ku ne xam na benn doole par rapport ak yeneen dëkk yi. waaw non moo tax bi ñu demee ba ci biir gis nañ. conséquences économiques yi nga xam ne am na ko moo tax gouvernement bi tëral benn programme de 1000 milliards bu xam accom accompagner euh, économie bi mm-hmm. accompagner nit ñi jën jënd ak dund jox leen Euh, yenn entreprise prise yi nga xam ne affaire bi impacté na leen ñu jàppale leen ci wàllu koom-koom ak yooyu xaalim dëgguma la xam naa ci wàllu dund boobu nga wax sax ci la dikk ndax ku ne xam na ne dund bi moom kenn ku ci nekk xam na ne euh, dégg na ci coow lu bari bari loo xam ne ñu ngi ciy nemmeeku ndax mën ngaa dikkaat euh, ci wàllu coow boobu en tant yow nga bokkoon ci commission bi nga xam ne doon séddale ceeb bi waaw da xanaa damay wax ci manière générale après nga mhm. a wax <laughs> famille am rek la say noonu tàmbalee te sax du question de noonu parce que nit ñëpp ñëpp soxla woon nañ ko waaye yàlla de def na euh, un million de ménage un million de ménages la état sélectionné woon mu war a toucher huit millions de personnes te ñu nekk seize millions cela veut dire que état programme wutoon pour ñëpp am euh, ña am nag moom xalabuñ ndax si sa si sa yëg looyee ñi nga xam ne si jox nañ leen 100 kilo ceeb jox leen fukki kilo fukki fukki kilo suukar jox leen fukki litre diw jox leen pâte alimentaire jox leen saabu wax dëgg yàlla sant nañ bu baax lim boobu nga lim moom lañu am. ca commission ba ne man de commission ba ma jiite. Mm. kenn génn fa dama xam nga lu ma su ma su njaxee kii ba pare sax. Mm. bale ko kenn jël dama naan. Mm-hmm. balaa kenn di jël na xool lim bii. Mm-hmm. ndax mat na su matul bu mu ko jël parce que bu génnee barrières yi mm-hmm. sa yëfa kon nag la nekk yeneen commission yi te jàpp naa ne en tout cas loolu lañ santaane woon. ne commission bu ku nekk ca liste ya ñu vérifier ko te doonoo doublon mooy li mbayeen yi def xam ne da ngay bind bind sa doom bind sa goro bind sa aawo bind sa ñaareel juróomi kit ba juróom benn kit war a dugg cib kër kooku euh, président commission bi dafa am responsabilité bu loolu amee mu retenir loola ndax aussi loolu xel moo ko mënta nag. da nga jàpp ne problème yëpp rek foofu la sokkee ko. non problème bi man de dama cee liggéey nekk aussi. far ak waaye li may wax te ñëpp di ko dégg mooy erreur yi ñuy wax erreur yi mhm. buñ ko càmbaraatul. état mi ngi sànni xaalisam. ci ban côté. ndax benn am na ci ñu wax kër yoo xam ne daanaka fukki bourse da ko fay fekk loolu nekkatul bourse bourse accompagné la mais loolu salaire la deuxièmement am na xam ñi ngi ci réunion te yayoowuñ ko nga def kon gis ñu sonn lool dama dem ba ba vraiment séddale bi def ma def problème ndax da ngay xëy gis ci barrière ñoo xam ne wax dëgg yàlla gis ne boo leen gis xam ne ñu néew doole lañ. nga gis nit ñëw gaare otoom jël ceeb moom ko mais munoo ci dara parce que turam moo ca nekk carte moo ca nekk mais yow mi koy joxe mu wóor na ne kii yaayowu ko cela veut dire que nam duggee ci RNU er-, ba jaarut yoon mu am beneen mbir ne boo xam ne bu <coughs> être que danañ ci ñëwaat mooy li may wax euh, importé xaw ma importé la sax xaw ma exporté mm-hmm. maanaam ay nit yoo xam ne si dañoo am ay relation mm-hmm. Euh, fexe ba éréni daaru man naan ñoom dëkkuñ daaru man naan ñu digal fa ay téeméeri téeméeri nit ñoo xam ne feneen lañ jóge ñoo koy ba laaj leen ko parce que bu ma laajtee man ca commune ba lañ ma wax la amee te foofu lañ la wax ne fa la amee fa la amee pourtant coow li ma la wax sànq nga ndax bu fekkee yow xam nga coow coow li ku ne xam na ne même ceeb bi nga xam ne mairie bi doon na ko séddal tamit ku ne xam na ne am na coow parce que am na ci ñoo xam ne dañ naan am na koñ yoo xam ne koñ ñu lëmm ay 4 saako ceeb lañ fay dugal nga xam ne du leen waaw bien que nag citoyen la. Ah, waaw citoyen citoyen la ba pare nekk euh, vraiment acteur politique ci dëkk bi. Mhm. nekk aussi contribuable. Mhm. te mairie bi loolu mu joxe sunu xaalis la sunu alal la. mais en même temps dafa am ñoo xam ne sax dañuy wax naan mairie bi ceeb bi mu joxe bañoon ko joxe sax moo gën parce que. tur bi non xam nga mënu ko wax ndax am na ne waxuñ loola. Mhm. yaayoon nañ ko man loolu duma ay jugement subjectif yoo xam ne du ci dugg. waaw ceeb nañ ko doon si euh, séddalee wax dëgg yàlla du lu ma maîtriser. bokkuma ci eh, ña ko doon séddale. Mhm. donc mënuma ci sori. Mhm. waaw li ma ci mën a wax daal mooy comme xaalisu contribuable bi jeex na. Mhm. xanaa dañ leen def bilan. wax ne xaalis ba fii la jóge ñaata la ak léeg lii lañ ca jox def maanaam. Euh, bilan comme ni ma ko waxee. mais Khadim pour jeexal ci côté ceeb bi rek ku ne xam na ne tamit fan yii dégg ay coow yoo xamante ni bu fekkee yaa ngi suivre ay coow ñuy wax na ay yenn saako ceeb yu rëy rek genre yu mel noonu bañ ciy tudd ay affaire de porte plainte loolu tamit lan nga ciy leeral. xam nga euh, loolu bu amee c'est vrai responsabilité la. Mhm. ka ko ko def. ak ña yaakaar ne am na. Mhm. Sénégal yoonu pays de droit la quand même. Mhm. nañ dem saisir justice. en tout euh, loolu dérangé wu ma. en tout cas ceeb bi bu réeree ceeb bu réer moom man en tout cas <laughs> lu bizarre la ndax. sant waa xam nga am na benn ture sax bu def ab ceeb fee ca Dakar yu xam naa ñooñu tax ñuy wax. Uh-huh. waaw mais dama bëgg revenir ci li nga doon wax léegi. Uh-huh. muy ñu may wax léegi cas importé xaw ma loolu war nañ ko wax. Uh-huh. mooy dafa am ñu toog ca commune ba. ndax euh, commune. ci wàllu bourse familiale daf nekkul comité de ciblage. bourse bu ñu ko doxalee ni ñu ko waroon doxalee je te jure ña ko gën a yaayoo ñoo cay rek ndax xam nga ni ñu ko waroon defee koñ bu nekk dañ fa waroon samp comité de ciblage boo xam ne euh, chef de quartier ba dañ tay nekk waaye moomu ko benn baat la ca am. Mm-hmm. chef de euh, comment dirais imam ba nekk ca. bàjjanu gox mbala ku représenté jigéen ñi association de jeunes ak personnes ressources composé ko ñu toog ca quartier ba ñu ne leen de war ngeen a sélectionné 20 bourses ñu toog ca penc ma oo nit ñi. Mm-hmm. kan moo ko gën a ñan ñoo ko gën a yayoo ñu defar seen liste ah Modou mii de moo ko gën a yayoo Fatou mais kon nañ ko jël mu vaye Fatou di ko def ba vaye mag mm-hmm. loolu bu ñu ko tànnoon am problème daal problème bi tamit xam naa ñu ngi bi xaadim tamit ñu dugg ci wàllu tamit assainissement bi ku ne xam ne Touba taw bi daanaka bareegul yenn bari te gis nañu ay gox goxaan yoo xamante nii daanaka dafay taa ba pour nga jaar fa sax problème la lan moo ci war a nekk responsabilité état responsabilité état mm-hmm. ak responsable ñi ñu ji jiite aussi fii au niveau local. Mm-hmm. d' abord nekk auprès des populations. Mm-hmm. di leen nemmeeku mais man li ma gis. Mm-hmm. li bu ñu waxee affaire assainissement rek. mooy ñoom tali yi ñuy jaar pour dem seen kër. ndax dama dégg ab réunion fee bërki démb ñu naan ca wetu Selba ca wetu euh, corniche mais finalement est ce que ñeneen ñi xam ne dañoo dëkk hors de la corniche dañoo bokk ci dëkk bi waaw ma ne déet mais ñooñu waxuma la. taataa traversé mais dañuy tëmb am na ñoo xam ne génn nañ seen kër yi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne mënatuñoo génn dem liggéey man fa ma dëkk pour ma génn damay wiiree wiiree wiiree ba léegi eh, lampe carburant bu ma def sa bu ma quinze sama lampe bi tàkk. parce que tout simplement nit ñi amuñ sax fu ñu jaar génn. mais gisuñ benn autorité bu ñëw nemmeeku leen. dañu gis ne aussi loolu lu yàgg la ci euh, Sénégal rawatina ci réewum ci Touba gi nga xamante ni yow fi nga nekk en tant que responsable APR e. te ba léegi gisuñ ci benn saafara boo xam am ay yeneen mhm. xam nga dama la wax damay wax souvent ne. Mhm. réew mi ñoo ko bokk. Mhm. ci asa indépendance ba bi fi Macky Sall di ñëw fii Touba amul woon réseau d' assainissement. yenn kanu yi fi amoon mooy Ablaye Wade bi mu doon defar yenn tali yi la ko accompagner ak ay kanu quelques canaux yoo xam ne c'était bari canaux de grande envergure loolu moom ñëpp d'accord ci lii fi amoon na ko néew ci assainissement sëñ Saalum moo ko fi defoon te bariwul parce que assainissement dafa diis bi Macky Sall ñi président Macky Sall ñëwee lañ proposé un programme de 12 milliards boo xam ne def nañ ko fii ñaari étage bu tawan kenn daaw fa jaar ñun ci dëkk bi lañ dëkk mhm. yëpp da daan taa boo gisee kii bassin bii ñuy wax bassin Kër Niang ki lañ ko réaliser mm-hmm. man loola kenn nettilu ma temps yooyu ministre euh, Omar euh, euh, ki nekk léegi décentralisation mm-hmm. collectivité locale moom moo fa nekkoon. Mm-hmm. bi mu ñëwee bokkoon naa ci délégation bi ko accompagne ñu dem ci Cheikh Bass Abdou Khadir le porte parole. pour wan ko plan bi nga xam ne def nañ ko pour def ce programme prioritaire d' assainissement. qui tourne autour de 7 ou 8 milliards. Euh, biñ fa jógee aussi gis nga liggéey bi nga xam ne si mu indi sax coow yi liggéey bi xaw a yéex parce que daaw gis nañ ne Baye Fall yi sax Baye Fall yi sax ñoom ñoo doon dem di sekkati canal waaw non justement loolu nekk responsabilité xam nga état moom mhm. bu la defalee yenn infrastructure mhm. day responsabilité mairie mhm. bu nawet jotee jubsee ngay def ce qu'on appelle une opération hiver pré-hivernale invité l'ONAS peut-être ñu accompagner jàppale la ci ay moyens pour ñu sekkati canal yi ku mënta yéeg mën a bës ku daanu yow defar nañ ay canaux nawet a ngi waaj a jot mhm. ñu gis ne point yi point yi day taa mhm. pourquoi pas ñu def une opération pré-hivernale moo tax réunion bi nga xam defoon nañ ko bërki démb ak euh, xawma kañ démb pour man dafa yéex fii fii taa ñëpp ko xam la solution technique bu bu nawet bi jeexee mais nañ jéem a ut une solution technique buntu commune kenn mënu faa jaar loolu ñëpp ko xam bu fekkente bu fekkente ne nag buntu commune ba bokk moomeel la commune. mooy kii collecte locale mooy taa. masa ñeneen ñi <laughs> mais feneen fu taaw c'est tout à fait xaadim <laughs> pour euh, jeexal xaadim ku ne xam na ne euh, daanaka tëj nañ lu mel ni Covid 19 bi euh, tëj nañ nit ñi lu mel lu toll daanaka ñetti weer nga xam ne loolu daanaka bokk na ci sax li nga xamante ni moo gën a suuxeel koom-koomu réew mi bokk ci te jamono ji baykat yi xaw a sonn lan nga jàpp ne. jamono ji moom moom li nga xam ne mun nañu ñuy relancer waat koom-koomu réew mi. waaw xam nga d'abord. Mhm. Euh, ba kay baykat yi dëgg la sonn nañ waaye nag distribution vivre bi je vous jure soulagé na lu bëree bëree bëri ndax man personnellement xam nga man na kenn moom ba kenn moom ma j'ai un esprit critique biñ lancé distribution vivre yi dama ne woon jaru ko woon dafa diis dama ne li gënoon a yomb mooy ñu def ko ci yi euh, ñu yónnee xaalis bëgguma tudd benn kii di leen defal publicité surtout ñooñu nga xam ne benn njëriñ ci réew mi ñooñu noonu euh, ma woon kon jaar jaara woon ko foofu moo gën a yomb mais ba demee ba ci biir mhm. jox naa raison ñu choisir distribution bi xam nga li tax mhm. dafa am toute une économie qui se développée autour mhm. comme comme la yëngalaat ci réew mi dama la jox exemple Touba li ñu jot ci vivre mat na cinq plus de cinq mille tonnes bi mu ñëwee ña ngi ko déposé woon fële ci camp gendarmerie ba ñu leen di félicité je vous jure bu dutoon ñoom si seen organisation ci seen discipline yëf yi dana métti lool ñu ko fay jëlee ñen ñoo ko fa jëlee ay camion ñoo ko fa jëlee ñu fay leen kon transport yooyu am nañ ca koom-koom te boo ko jaaraloon ci ñële ñoom ñoo ko jël rek ay kii def ko seen poche dem ñooñu noonu mooy ñu ñàkk njëriñ ñooñu kooku noonu di yore téléphone bi di joxe xaalis <laughs> <laughs> waaw mooy société boobu rek xam ne bu xëyee rek yokk ay tarif amuñ benn njëriñ ci réew mi <laughs> euh, bañ ko yóbboo aussi ba ca koñ ya mhm. distribution ba am ay saret ki i taxi ñoo ko doon jël bu bu eh, Masamba bala ma dem ba génnee ceebam yóbbu ko bala ma àgg foofu la ko doon sëf ak di ko wàccee ay manœuvre la 5000 tonnes ñoo xam ne minimum 2000 mu en moyenne 2000 francs la woon par ton pour yéegal beeg wàccee bi. xam nga ñoo ñooñu aussi am nañ cas koom-koom yu ñu yóbbu seen kër. sareet yi nga xam ne si ñoo koy jël. di ko yóbbu ca kër ga bu Masamba jëlee ceebam ñu yóbbul ko mbala taxi ya mhm. am nañ ca koom-koom mhm. mais aussi am na beneen commerce bu doon développé autour jaaykatu ndox ya ña foofu di jaay mhm. jaaykatu caaf yaa ngi fa jaaykatu beñe yi jaaykatu café yi et cetera donc ma gis ne y a toute une économie qui s'est autour ça et ça c'est une excellente loolu lu baax la loo xam ne lu ñu mën a rafetlu la baykat yooyu ngay wax aussi am na vidéo yuy circulé <laughs> baykat bu nawet ñëwee sàq yee nga jox ko ñaari saakoy ceeb. jox ko fukki litre diw. mais est-ce baykat yëpp ñoo ko am xaadim. mais génnal ya àll bi moom yëf yi yaatu na ci lool lool lool du ma ne ñëpp ko am parce que wax naa ko léegi. Mhm. ñëpp amuñ waaye ña ko jot di wax dëgg yàlla. Mhm. sant nañ bu baax te soulagé na leen. Mhm. li nga wax nag il faut que réew mi. mu am après Covid. Covid war nañu jàng lu bari. ndax ñëw nañ fi tubaab yi tëju yeneen réew yi tëju. te ñun essentiellement li ñuy dundee ci bari fa la daan jógee. est-ce que jotul tey ñu xam ne autosuffisance alimentaire. priorité la ci réew mi. Mhm. du priorité rek ci état mais ci ñëpp. Mhm. te lool fa muy jaar nag moo ci mbay d'abord. ndax baykat yi ñi ci àll bi ñu ñooy dundal ñi ci ñi ci taax yi. Mhm. je crois que foofu aussi am na un programme spécial ak ci wàllu santé ak yooyu xam ne. bu ñu ko taamayatee bu beneen émission danañ ci mën a. incha allah incha allah xaadim sa kàddu yu mujj ak lan ngay tàggatoo ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel ci site di di 24 actu yi. waaw di euh, lancer un appel rek. autorités yi. gis nga nit yi boo leen jiitee. gis nit ñi borom xel te société dafa dynamique il faut que ngay jàngat yenn xew-xew yi am. Mhm. lu fi xewoon Touba fii xale yi di génn di manifester. musu mhm. fi am musu fi am. est-ce que jotul suñu autorité yi nga xam ne ñoo ñu jiite. Mhm. municipal euh, municipal ak étatique yëpp. ñu jàngat ci loolu. parce que dafa am une tranche de la tranche de la population euh, tranche de la population bu dem ba amatul am désespoir amatul yaakaar ci ñu leen jiite. fii nii Touba. wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo génn euh, comment on l'appelle corniche bi boo demee ci sancaan yi war nañ leen gestuwaat bu baax a baax a baax ndaxte bu nit ki bu fekkee te amul yoon yu mu jaar bu tawee mi ngi ci tëmb ci ndox mi euh, bu gisee lumière guddi day yaakaar daa jommi te mu ne ci biir la ne la deuxième ville du Sénégal y a problème mhm. lampe yii bi mu ñëwee lampe solaire yi mhm. wax dëgg yàlla war nañ cee mën a génne lim mhm. ay dongo lañ nag ay taalibe lañ waaye nag baam na loolu waaye ci jur gi bokk Euh, mënoon nañ cee génne lim. Mhm. yóbbu ko ci koñ yooyu nga xam ne si. Mhm. gisuñ courant gisuñ lumière insécurité am fa. Mhm. ñu loué aussi état li mu ci def. Mhm. ci poste de police yi ñu fi tabax ak. Mhm. ak quand gendarmerie yi fi tabax. Mhm. waaye aussi war nañ accompagner population yi ci lu jëm ci éclairage public. ci lu jëm ci wàllu euh, courant. ndox mi nga xam ne ci yenn quartier yi daanaka amatu fa. macha allah euh, euh, nit ñi buñ génnee di tëmb ci ndox mi tout la journée. risque de maladie yi ci am. kon nag ñuy ñaan kilifa ñuy ñaan ko commune bi. nañ dem seet nit ñi. ñooñu ci lañ bokk. dëkk bi yemul ci corniche bi mhm. nañ génn xool sañ-sañ xool vivre nit euh, situation yi xam ne moom la ñuy vivre mhm. je crois que loolu début de solution la déjà mhm. kon euh, ñuy sant euh, di nuyu vraiment sa technicien yeeg ak ñu nekk ci site yëpp ak ñu ñuy suivre à travers la magie du jërëjëf euh, Khadim ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm moo nekkoon tey suñu gan ci invité de la rédaction ci biir gi di 24 actu ñu koy bu baax comme ni leen ko présenté woon rek ci commencement bi mu nekk responsable politique APR bu baax ci yombalal gi nga xam ne euh, yombalal nañu ko invitation bi di ko ci sant bu baax di ko ci gërëm waaye tamit di leen nga xam ne yéen a ngi ñuy topp ci site internet bi di 24 actu euh, fu biir réew mi ak ci bitim réew di jaajëfal suñu caméraman yi Modou Diouf ak naataango bi mu feggool ci caméra bi waaye tamit di jaajëfal Cheikh ci montage bi bu ngeen gisee montage bi yem rek fekk mën nañ ne ci moom la di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox euh, daje euh, beneen invité euh, ci invité de la rédaction je suis biir kër biir kër gi di 24 actu mbokki yi jërë ngeen jëf